merci de votre fidélité. Bienvenue dans les maîtres du jeu. Drôle de pirouette que celle que nous a posée notre invité du jour, Gorgissi Dieng. Nous pensions le retrouver à Minnesota, une ville qu'il maîtrise sur le bout des doigts pour avoir évolué avec les Timberwolves pendant 7 ans. Eh ben non, nous sommes ici à Memphis dans l'état de Tennessee Gorgui Dieng a rejoint au mois de février dernier pour jouer avec les Grizzlies de Memphis. Memphis, quand on en parle, on pense évidemment à Elvis Presley. C'est la ville de Otis Redding, une ville musicale. La preuve, nous sommes ici à Bell Street où la musique jaillit de partout. Mais Memphis, c'est aussi l'assassinat du leader noir américain Martin Luther King un 4 avril 1968. La carte postale de cette émission, vous connaissez le principe, euh, vous l'aurez dans quelques minutes. Nous parlerons basket avec notre invité. Son départ surprise des t il été la sortie L'équipe nationale, son actualité, c'est évidemment peut-être cette chance de jouer les playoffs mais il y a un pan qu'on ne peut occulter. Quand on parle de Gorgui Sy Dieng, et bien sûr, c'est le pan humanitaire, puisqu'il a été récompensé au mois de novembre dernier par le NBA Cares Community Assist Award, un prix que lui a attribué la Ligue américaine de basket. Des choses à dire, il y en a avec Gorgui Sy Dieng, mais auparavant, je vous propose de vivre une carte postale très jazzy, très groovy, Memphis oblige. C'est parti de Memphis est située sur le Mississippi, au sud-ouest du Tennessee. Elle est considérée comme le berceau du blues, de la soul et du rock and roll. Memphis, dont la rue majeure et la plus attractive s'appelle Bale Street, club, restaurant, bar, aligné sur environ 2,4 pour faire swinguer les amateurs avec du blues, du jazz et du rock and roll. oui. Kogi. ça va bien. baa yaa ngi si jàmm. Ah, ah merci. tey tey yow nañu seet si. yeah thank you. <laughs> merci ngeen jëf ci ci ci maître du fii. ah mu ngi nii. c'est une c'est une nouvelle ville. yeah toog la gis nga ñu ngi soog a ñëw fii ñu ngi soog a taxu. ok. yeah. et comment comment tu te sens ça va euh, fii saba va nu mu mel euh, neex na ma. Mhm. gis nga par rapport ak Minnesota am na changement yu bëri dëkk bi tàng na. ok euh, fii ça va bi saba va am nga fii. ok ñëw bu la bett la ah? waaw waaw bett na ma parce que tamit xaaruma ko woon. Mhm. mais professionnel moom dëkkul fenn xam nga. tey ñu nekk fii su ñu nekk feneen si liggéey bi la bokk quoi. ok mhm. et dès que tu arrives tu essaies de trouver benn cocon familial ou cœur installé wu man je me suis dit góor gi on va le trouver à l'hôtel il va être un peu voilà esselé mais non tu viens tu t'installes. yeah dama ñëw rek depuis mooy traite bi am na lu ma njëkk a def mooy wut kër parce que man euh, fépp fu ma dem yaakaar naa ne bëgg nekk ak sama famille. xam nga mm. ma wut kër ma ñëwee fi heureusement ba trouvé naa place boo xam ne mën naa fi nekk. donc ma essayé ñëw fii très rapidement. Mhm. dëkk fii ko ok dañuy tey da nga joué. tey dañu am game dañu am game si kanam nii. ok donc. Euh, Euh, xam naa ñu ñëpp dinañ dem foofu. super ñu wàcc game bi xool après. gën a waxtaan daal gën a yaatal waaw yéen comme yéen ñëw ngeen fii. wala wuy lépp lu ngeen soxla <laughs> mën nañ si waxtaan quoi. ngeen jàpp ci. ok merci beaucoup. donc ñu dem entraînement alors. ok euh, ci game bi bon plutôt match. waaw bi ok c'est les maîtres du jeu ak euh, Gorgui Sy Dieng ñu ngi jëm nii nag euh, FedEx Forum fi nga xam ne mooy seen euh, salle de basket tey ñu war a dajee je pense ak Orlando alors Gorgui le rythme de vie d'un basketteur comment on fait pour gérer 82 à l'année les voyages nan nga ko dundee ak lan nga ñu ci mën wax loolu moom it's hard ak ku la ko mun ta lu métti la xam nga 82 <laughs> li ngay joué moo gën a yomb mais préparation yi ñoo gën a métti. Mm. nan ngay def te loolu vacance rek nga ko mën a def préparer sa yaram bu nga xam ni dina mën a tenir coup yëpp quoi. ok euh, donc lu metti la mais tamit bon yaakaar naa boo si xasee ba nekk à un certain moment da ngay dem ba danga koy tàmm. Mm-hmm. parce que yaram moom loo ko teg da koy tàmm. ok donc euh, loolu la quoi. est-ce qu'on récupère de la même manière quand on a vingt cinq ans et quand on non bokkul moo tax euh, hygiène de vie am solo boo nekkee xale lépp loo def da nga naan non xale la mën na ko. Mhm. mais après bu fekkee yow bi nga nekkee xale toppatoo woon sa yaram après tôt ou tard da nga koy fay. ok mhm. et puis benn spécificité bu ma jàng ci li ñu jot a nekk fii rek. Mhm. mooy l'absence d'entraînement collectif. maanaam yéen du ngeen toog en équipe ngeen jouer comme ni ñuy gis en Europe c'est un entraînement individuel mais loolu nan la mën a nekkee comment tu arrives à avoir des des automatismes avec tes coéquipiers. yëpp non non non la xam nga fi moom euh, level bi dafa graw xam nga. Euh, boo gisee sànq may wax ak yow maa ngi doon xool sama maa ngi xool sama téléphone. Mm-hmm. parce que lépp mu sama téléphone. ok lépp bu dee entrainement yi bu dee clip yi ku ma war a dajeel tey xam naa ay forum ak ay faiblesse am. mu sama. Mm-hmm. équipe bi dafa am benn application boo xam ni. Mm. lépp si lay nekk. Mm. heure bu ngay lekk heure bu ngay entraîner heure bu ngay def sa entraînement individuel yi comme ni ma expliqué avant match bi. Mm-hmm. xam naa di ko gis. ku ne dafa am benn dix euh, match bi. Mm-hmm. moom ngay jéem a simuler mais ça veut dire que quelque part aussi dañ leen responsabiliser boo xawul am tamit benn niveau bi est-ce que di nga mën a jouer NBA même ci wàllu jàng bi. non parce que moo tax ñu bari léegi dañuy. duñ dañ lay jël pour boo nekkee après université lañ lay jël. Mm-hmm. soit nga def un an deux ans mais mënoo ñëw rek ñu il faut dañuy soxla niveau d' intelligence boo xam ni parce que ba jeu bi dafa gaaw. ñi ngay joué dañu physical. donc il faut nga yow yow il faut nga nekk koo xam ni sa xel dafay ñëw quoi. Mm-hmm. pour nga mën a ñëw rek euh, bokk. ok et du ñëw war dugaat ci beneen équipe bu bees. Jang for three. Bango! Welcome to Memphis, Gorgie Jang. intégration boobu nan nga ko dundee. waaw nga xam nga NBA like uh, équipe yi maanaam joueurs yi xamante nañ bu baax équipe yi xamante nañ président yi général manager yi xamante nañ. Mm-hmm. donc yow tey da nga mel ne kuy dem boutique di togg. da ngay dem nga ne ah man lii laa manqué xaama dem jëndi loolu. Mm, mm, mm. donc noonu la demee quoi. ok d'accord léegi man bu ñu ñëwee rek naan ah yow lii mooy sa rôle. ok en plus tamit li moo a aspect il faut nga ñëw tamit quoi. il faut nga mën a il faut nga mën a ñëw teel a bokk parce que attaques yi. c'est bokkul xam nga système défensif yi bokkul. xam nga yëpp il faut nga ñëw rek. tey adapté wu daal soo ko mënul jàng doo mën a jouer. doo doo dem. mais du coup góor yi ça doit être un rêve de jouer je crois que mosoo ko jouer bi nga nekkee basketteur professionnel ba léegi. benn yoon benn yoon benn yoon. ok benn saison rek lañ make playoff euh, ci Minnesota euh, mais lu ma bëgg la daal xam nga. bëgg naa di jouer playoff parce que it's fun foofu la ñuy wax ni foofu mooy basket dëgg. te gis naa ni bokkul woon. regular saison nii mun naa ne fo la rek ku ne lay jouer <laughs> mais playoff like dañ lay xam sa biir ak sa biti. ok di ñëw rek yombul quoi. Mais du coup, là, nous d'habitude comme ça, on va écouter un peu de, de musique avant de partir. Là, moi, c'est euh, ce playlist musicale. Euh, man, si je dina déglu dina déglu Wali, mhm. dina déglu Youssou Ndour, mhm. dina déglu ñop Sénégal, mais le ëpp moy déglu like mu nax ni Wali la quoi. Ah, OK. Yeah. Musique américaine bi non non non laay laa doon non man yooyu du ma ko déglu. man moom 100 pour cent sénégalais. xam ah, nga laa doon sant daal yooyu moom. 100 <laughs> pour cent from Galsen. Eh, exactly. <laughs> d'accord bon on va aller au FedEx Forum et puis euh, te te concentrer sur la route le temps ñuy yegg about you? I think he's a good player. I think he's a good asset. He brings, brings good energy. He's got good experience. I think he'll be a, a, a very productive member of the team. Okay, I'm happy to see him. I, I am happy to see him play. Okay, thank you. You know uh, the new game? Uh... Gorgie Jang. Jake, okay, uh, you see him play. What do you think about him? He's solid. He's a good player. He's got a good. He's a good defender and has some. He's also good offensively. Can make a mid-ranger pretty well and is a good rebounder. He'll be a good backup big behind jo Jonas and. He's played really well for us, so yeah. I've been cheering for my whole life, so <laughs> okay. born here, so. All right, I understand. Thank you very much. One of the things we've been excited about to see with Gorgie is um, there was some concern with new players coming in whether or not they would fit. Uh, but with Gorgie's size, the way he's able to rebound the ball uh, and defend and protect the rim has been what you would expect. What we didn't expect was the offensive production we've been able to get out of him. Uh, the fact that he can knock down threes, uh, the fact that he can take people off the dribble and go to the hole. um, offensive production has been a bonus, but it's been a pleasant surprise. I think he's a great player. I think he's a great leader uh, for the young guys on the team. He's currently uh, well, he's the second oldest player on the team right now, eh, just 30 years old, which is amazing within itself. Uh, we're a very young team. He brings a lot of veteran leadership. He's a great defender, probably one of the best backup centers in the NBA. And uh, Jonas Valanciunas, he's the backup center behind him. I think he will. Uh, he's um, he helps shore up the bench. One of the things that the Grizzlies, one of the Grizzlies' strength is, is that they do have players who uh, you can go very far down the bench and get very solid production. and Gorgie's a big part of that. Um, the fact that the Grizzlies often are able to beat teams by double digits uh, correlates with the fact that we have such a strong bench, and Gorgie is a big part of that. I remember when he got his big contract a few years back. He used to, he was a good starting center. I remember him back in Louisville when they won the national championship, and he was on that team as well. Uh, he's just a good guy in the locker room. Just a good guy to have on your team. He plays hard. If he plays hard, he's gonna. great player, you know, um, size in the paint, um, rebound, block shots for us, and also can stretch the floor out. Um, he's a good talent. Um, you know, we're still trying to get him a, a little comfortable, um, take more shots. Um, it'll all come together. Uh, um, Gorgie's amazing. He's amazing. Uh, you know, off the court, I've, I've spent a, a, lot of time with him. Obviously, this is my you know fifth year now, fifth season with him. so I just know him you know, a better than, than most. And um, off the court, you know, he's amazing, so much, um, so caring, and um, you know, just a down to earth, humble, uh, loving human being. And then obviously on the court, uh, I enjoy playing with G. you know, he's just a, tremendous force on the defensive end. an even better teammate. Um, you want in the locker room you want on, your side, uh, you going to battle with you night in and night out. Um, positive things to say about G. Gorgui Sy Diagne góor gi match ba bon match boo xam ne la défaite ngeen si jëlee mu bëggoon la laaj un peu en tant que professionnel ngeen war di jouer 82 si ci saison bi aspirer peut nan ngeen di gérer ces stress là des victoires et des défaites mentalement est-ce que da leen di affecter wala vous passez très rapidement à autre chose. jërëjëf affaire yi mënoo ko tey parce que boo jógee si match yi. Mhm. mënoo tout le temps ngay xalaat lan laa waroon a def. Mhm. su passé passé na euh, yaa ngi xalaat match bu nekk sa kanam. parce que match yu bari la donc euh, quatre-vingt-deux matchs. mënoo mm. tout le temps ngay xalaat lii laa war a def wala lii laa lii laa waroon def pour gagner. Mm. instant bi li gën a important mooy match bi nekk suñu kanam. en général dañ naan when you shower you flush maanaam boo sangoo rek. sangoowaleel ak defet bi nga fàtte. comme ni nga ko waxee sànq ñëw nga rejoindre groupe bi je pense que nii tu es une première position en de banc euh, est kontaan nga ci temps de jeu bi nga am par rapport ak fi nga jugee. I'm happy with anything like am ma dara loo xam ne lu may regretté wala lu ma métti. Mm. xam nga uh, NBA is ligue bu métti la ku ci nekk am na rôle booy mm-hmm. te booy foo intégré nañ la wax lii lañ soxla lii lañuy ñuy xaar si yow. donc uh, nga départ nga jóge si banc bi nga joué nga ñàkk a joué just enjoy the league. like mm. xam nga ñëpp ñoo bëgg a joué. te tey boo seetaanee. avant nga avant match bi commencé constant mu def entraînement avant mu joué da nga ne kii lan moo tax joué wul. Mm. mais ay choix la ku ne mooy def choix am ak ki la doy quoi. mais maa ngi soog a ñëw fii maa ngi joué donc am ma lenn loo xam ne maa ngi si complain quoi. Mm. mais transfert bi bett na la comment ça s'est passé parce que ñun dañu xëy rek gis oui Gorgui euh, va aller rejoindre les les Memphis Grizzlies bett nañu mais est-ce que yow bett na la. waaw bett na ma. bu fekkee dëgg rek nga bëgg a dégg bett na ma. <laughs> parce que ba lu ma mujjee woon a xam mooy man kenn du ma. transféré mm. léegi jour bi nga xamee ne mooy de mooy deadline bi. Mm-hmm. Euh, maa ngi toog di añ xam nga. maa ngi ne xaaral ma añ dem entraînement quoi parce que mm. jour boobu dañu waroon entraîner. Mm-hmm. Euh, deadline moo tax ñu pousse entraînement bi ba ba ba quatorze heures ba quinze heures yaakaar quatorze heures fii. Mm-hmm. mooy quinze heures New York. donc léegi nag ma ne xaram préparé wu añ dem entraînement nu may toggee rek ma taal télé bi euh, Wiggins message ma ni ma trade nañ ma Golden State mm. ma ne ko waaw like xam nga rek mm. ma ne ko xam nga am dinaa per sama xarit daal xam nga parce que maa ngi xam nga ni ñu mel ñëpp xam nañ ko d'accord léegi ni ma toogee noonu affaire bi des quarante mille pour trade bi jeex rek ma gis sama tur si suufu télé bi <laughs> boo gis sama tur ko ne traité nañ ma. Uh-huh. léegi li tax ma naan ma sama jabar xoolal like traité nañ ma. Hmm. rek sama téléphone sonné après gars yi woo ma ni ma voilà lii ak lii xam na xam nga dañ lay traité lii lii moo. Hmm. man leen ok amul problème parce que tamit. si liggéey bi la bokk. xam nga professionnel dëkkul fenn. Hmm. dañuy dañuy dañuy jël dañuy dàq dañuy wàññi. Hmm. lu ne dañ mën na am quoi si si bi la bokk. Hmm. ça veut pas dire que da nga ñàkk jom wala da nga lii mooy xew. dëgg la mais souvent damay dégg ñu naan euh, joueur bi ci trade yi moo koy mujjee yëg et c'est ça ça a été le cas. dëgg <laughs> parce que xam nga la ñuy du ñu bëgg nga xam ko lu tax. yeah parce que buñ buñ buñ ko buñ la waxee la la fiy jëlee wala dañ la bëgg échange. trade bi avorté. yow bu la defee nga bañ a joué bu baax. nga nit ñuy mm. faalew ñu ma. donc yow doo yëg dara. yow boo ko yëg télé nga ko yëgee. Mm. wala dernière minute bu jàllee ba jàll. ba lépp pare ñu woon la ah instant bi nag merci pour sa service affaire yooyu léegi voilà <laughs> <laughs> beneen yoon mais mais góor gi quand même Minnesota dafa nekk moment bu important si sa carrière parce que mm-hmm. tey bu ñuy xool ci sa historique. foofu lañ la da drafté foofu nga njëkk a commencé bien que du ñoom ñoo la drafté je pense que waa Utah ñoo la drafté woon en en 2013 après ci nga dem ñu yóbbu la Timberwolves de de Minnesota. Mhm. ba pare tamit nga am fa benn saison bu njëkk bu neex ndax mu ñuy xool dañ gis ni que yow yaa nekk premier rookie bu réaliser un un 20-20 mooy 20 points 20 mhm. ba pare ñu nommé le rookie du mois de mars 2014 par la NBA. ba pare nga nekk premier sénégalais bu participer All Star Weekend en NBA donc lu nekk lu am solo en en février 2015 ba pare ñu sélectionné la pour le Rising Star wax ñu un peu ci sa début tonitruant yi ci ci ci Minnesota. waaw xam nga li ma lay wax sànq rek man la gis nga euh, chance daf si nekk. Mm-hmm. da ngay tombé ku la bëgg. Mm-hmm. tombé ku ku gëm li yow mën nga ko mën nga bu équipe bi feneen. bu mm-hmm. may commencé Minnesota like. gëmoon nañ ni si star équipe bi laay bokk woon uh, one day. ok xam nga mais ay changement am na su ma nee la sept ans laa joué am naa six entraîneurs. Mm-hmm. loolu c'est c'est rare. xam six entraîneurs am naa ko. Mm-hmm. ki nga xam ni moom a drafté dafa dafa mujjee décédé. Oh, oh, oh. xam nga Philippe voilà ku la jege la d'ailleurs ku ma moom moo doon moo nekkoon imagine nga nekk président équipe ba pare di ñëw di entraîner ce jour. Mm-hmm. waaye tout le temps su ma amee temps boo xam ne daf ma dara daf may woon ne ma leen daje suuf entraîné ma parce que tellement daf ma bëggoon. te gisoon na si man ni xam nga pour nga réussir quoi. voilà léegi nag bon bi Philippe gaañoo euh, ñu def changement yeneen am après keneen ku ñëw tamit da ngay circuler doy nga ànd ak moom. xam nga doo ñëw nit ni ko force mën nga war a àndal par force. <laughs> xam nga bon nekk naa foofu amee ma mani xam nga signé naa contrat. Mm-hmm. Euh, I'm happy with them xam nga am ma dara loo xam ne naa ko reproché Minnesota doon tey dem naa ba la fin euh, des fois ma joué des fois ñu wàññi sama temps de jeu mais du loo xam ne man maa koy contrôler mm. parce que boo seetloo depuis ma commencé ba léegi chaque fois bu ma amee temps pour jouer dinaa prouver sama valeur dinaa wala laa mun a def xam nga donc man loolu am hmm. ma ma joueur boo xam ne tamit damay nekk fi di dóor ay buntu wala di saaga loolu like ama pro ama pro professionnel la like damay ñëw def sama liggéey li ma sant ma defal la ko su jeexee jeex na hmm. mais moom moo amul frustration tuuti surtout li nga wax début bi dañu nekkoon danga nekkoon ci joueurs yi ñu yaakaar bëgg leen porter je pense que NBA noonu lay fonctionner da ngay am ay xale bëgg construire équipe bi ci yow nga xëy ñu reléguer la un peu au second plan est-ce que dundee woo kon lu met et puis chaque année ñuy wax góor gi dafay dem góor gi dafay dem. waa xam nga gëm yàlla rek xam nga ñun ay jullit lañ quoi. Mm-hmm. ak lu mun a xew ah, yaakaar naa ne ay jullit lañ xam nga. Mm-hmm. ak lu mun a xew dañu ñëw fii daan suñu doole tey suñu moroom yi nga xam ni tey ñu ngi ñoo tollooyee at. Mm-hmm. ñu ngi ñu ngi seet ñoom nu ñuy def pour make it xam nga ñu ngi seet lu ñuy def pour fay seen jàng wala pour liggéey wala commencer xam nga. tey boo am na man pour man jàmbat waruma quoi. wala mën a toog di xalaat am ay soucis dara waruma. parce que mm. defaluma dara yàlla ba mu def ma situation bi ma nekk tey. Mm-hmm. donc ak lu mun a xew dama koy jël ak philosophie mu understand ni lii si liggéey bi la bokk xew na. Euh, naa xool nu may def ba romb ko. pour nekk si leneen. mais Minnesota bokk nga ci joueurs yi fa gën a jouer ay match mm-hmm. que tu fais partie du top 5 joueurs ah. ak 400 matchs. yoo xamante ni euh, jot nga ko fa def loolu quand même lu ndaw ça veut dire que góor gi moom turam dina des foofu dans tous les cas. waaw xam nga euh, ku wax sport da nga wax ay record. xam nga mhm. kuy kuy wax sport rek loolu moo tax te yaakaar naa Minnesota foofu euh, mënoo lim. top five ci ci aspect yu bari te boole woo ma mhm. xam nga donc loolu lu may sant yàlla la. Mhm. xam nga moo loolu la quoi mais am ma dara loo xam ne maa ngi ko regretté si sama carrière non non non jamais jamais te bi ngay dem tamit defal nañ la message bu rafet voilà remercier la wala ne que au moins compté nga woon pour ñoom delloo la njukkal voilà si liggéey bi la bokk xam nga mënoo nekk mhm. fi ni dama mere lii parce que lii non non non man lu ma lay wax rek tey maa ngi lii mooy sama gagne-pain maa ngi mm. sant yàlla mm. xam nga yaakaar naa ne ba nu mooy deewee dina am lu ma añee reer ndekki mm. loolu moo am solo si mm-hmm. àdduna xam nga am sa sutura mm-hmm. loolu moo solo li ci mm-hmm. des nag moom bàyyi naa ko si loxo yàlla bu dee liggéey ah, li ma war li ma war sama liggéey maa ngi koy def te xam naa nuñ koy defee donc loolu man am ma si benn sikki sàkk dama dégg ni sa contrat la war a jeex n'est-ce pas est gi peut-être bu saison bi jeexee war na mën a xool beneen club ak nan nga projeté woo sur le plan sportif ci NBA nga xam ne ligue bu métti la li ngay wax ça demande beaucoup d'énergie beaucoup d'hygiène de vie aussi est-ce que tu te projettes sur cinq dix ans pour encore être au très très haut niveau. waaw xam nga loolu loolu yàlla moo xam tey maa ngi nii damay liggéey rek. xam nga tey lépp bàyyi naa ko si loxo yàlla xam nga tey du ma du ma wax ne lii laa bëgg a def lii laa bëgg a xam nga lépp bàyyi naa ko si loxo yàlla. Mm. mais en tant que sportif. li ma war mooy entraîner def sama liggéey NBA bi mu ngi changé. Mm-hmm. ñu ngi changé ànd ak moom. avant c'est nga doon gis boo xoolee sama yaakaar naa quatre ans cinq ans yu ma joué yëpp trente et un trois points laa mos a sànni xam mm-hmm. nga mais léegi xam nga ni like trois points sama jeu la bokk. Mm-hmm. like tout le temps maa ngi parce que. damay xool li nga xam ni su coéquipier yi sax confirmé nañ ko. voilà wax nañ ni que qualité yi ñu la xamal mooy qualité défensive. mais da ñëw indi apport offensif notamment sur la ligne des trois points donc ñoom tamit gis nañ loolu. voilà xam nga léegi loolu nag dafa laaj entraînement dafa laaj préparé wu. aussi bëggoon naa ñu dellu si ndax tey am nañ temps waxtaan nga dellu si un peu ci sa ci sa histoire ak basket man li ma gis mooy ni que Kébémer nga juddoo fa nga màggee jàngee fa foog naa dem fa ba lycée ba ngay waaj a dem bac nga dem académie Sid ma bëggoon xam Sid noo fa duggee. waaw li ma loolu lu am solo la parce que su ma loo soo laajee loolu dama si kontaan. Mm-hmm. parce que nit ki ku gërëmul nit mënoo gërëm yàlla. Mm-hmm. tey lépp lu moom si parce que. Mm-hmm. Ah, mun naa gis loxo Assane Badji. kan mooy kan mooy Assane Badji. Euh, Assane Badji laay euh, koo xam ni la Sine la nekkoon di liggéey. Euh, site nag Amadou Gallo Fall moo ko créé xam nga nekk ñoom mu jël xale yi ñuy nekk foofu di basket. Mhm. mais Assane moom mooy ki nga xam ni moom ma jëlee Kébémer. Mhm. parce que man sama papa mosul bëgg ñu sori ko. Mhm. xam bëgg ñëpp ay doomam wër ko affaire yooyu bon lépp àdduna bi jàng la woon. xalaatuma affaire sport quoi. waxtaan ak moom convaincre ko mu bàyyi ma dem Thiès. nekk site que foofu parce que programme bi sport étude la quoi. Euh, léegi nag Assane bi ma yóbbee foofu ma foofu bàyyi ma parce que dama yow ma toppatoo xam nga. Mhm. ma make sure maa ngi entraîné mu dugal ma raay may joué raay affaire yooyu yëpp daal. Mhm. xam nga ma fii tamit ma ñëwee Amérique Assane tout le temps daf may woo di xool lu ma nekk ba xam maa ngi def lu ma war affaire yooyu daal xam nga mhm. bon sama sama carrière yëpp même des fois su ma nekkee Dakar sax nii nii nii ba nii nii. su ma ma fontoo affaire yooyu léegi xam ma ne ko fi am am doom xam <laughs> tout le temps day nekk si hmm. man. juste pour bëgg rek ma ma nekk au top. d'accord waaw Assane daal mooy koo xam ne si man xam ma xam ma nu may def quoi. Hmm. like lépp loo xam ni lu ma am tey si si si sport. si loxoom la jaar ko très bien du coup Sid euh, Sid lan nan nga fexee ba ba émerger. pour que nga mën a dem États-Unis c'était naturel wala dafa am ku la ku la ku la ku la gis pour nga dem intégrer un peu Louisville euh, ak championnat universitaire bi bu bu ma ñëw si lépp Assane la Assane moom moo ma gis tournoi mooy basket euh, tournoi bu amoon Saint-Louis. Mm-hmm. waa fédération ñëwoon coach Idi ñëw fa Assane ñëw fa. Mm-hmm. ñoom ñëpp après ñu commencé wax su may wax si lañ ma invité équipe nationale après nag toppee bu indi mais site boo fa nekkee chance bu nu am mooy dañuy am ay coach américain yu ñëw di ñu seetaan si. ok di ñu entraîner si. mais man yàlla dafa defoon ni laay ku ñëw rek boo gisee rek naan kii he's pro daal xam nga kii. y' a y' voilà voilà kii am na mhm. potentiel boo xam ne mën na jouer NBA. Mhm, mhm. amoon benn waay bu ñuy wax Patrick. Euh, ak beneen italien bu ñuy wax Roberto Carminati ak euh, beneen allemand bu tudd Olga. olgo mooy ki nga xam ni moo formé Dirk Nowitzki pour mu. mu hmm, basket. parce que dafa mel ni Boniface tudd na ko tamit. Boniface dem na si Olga. exactement xam nga <laughs> Olga moomu nag. ok. waaw euh, Patrick moo ma doon jàngal affaire yu dribbling affaire yooyu. Roberto moo ma doon jàngal affaire yu maanaam sa sa tànk yi ni muy kii yooyu xam nga. mais olgo mooy ki nga xam ne nag moom ma jàngal sànni. Mm-hmm. xam nga olgo moom ma jàngal sànni. Euh, si moom laa demoon si Allemagne amatuma boole woon ak moom. Mm-hmm. Gallo ma dem Allemagne nekk fa ak moom nekk fa ay mois. comme ni Amadou def ak Boniface. ba mhm. mu xam nga noonu ko ba mu. voilà voilà ba mu rattrapé retard bu mu amoon. voilà <laughs> léegi nag après ma jugee foofu si laa waxtaan ak euh, Assane Assane ne ma daal man suma sañoon nga dem parce que Allemagne bu ma nee fa dañoo bëggoon a foofu. ok xam nga ma waxtaan ak coach Idi coach Idi Sid la nekk. wax ko mhm. man ma bul def loolu demal nga joué ci euh, collège. ma wax ak assan ñun ma moom tamit ni ma même chose xam nga galo tamit comme mooy seen kilifa ñun ñëpp mu ne ah mhm. kon demal nga demal high school après nga dem collège ak foo mënta dem di nga dem NBA loolu ma Gallo wax ni ma am nga talent bi mhm. xam nga you got your xam nga di nga dem NBA ak foo mën a nekk mais demal nga jàngi comme sa papa loolu la bëgg après nag si laa ñëw fii mhm. euh, si laa demee Afrique du Sud benn camp bu ñuy wax basketball za Borders euh, foofu nag foofu la ma euh, école yi gisee commencé ma offrir hmm. scholarship. pour ma ñëw. après si laa ñëw Amérique dem fu nuy wax Huntington Prep. Hmm. ma nekk fa ma jógee Huntington ma daal dem Louisville après Louisville nag lañ ma drafté. d' accord hmm. Louisville tamit nekk na fa champion universitaire. voilà mu nekk aussi loo xamante ni moment bu neexoon la et puis sénégalais ci lañ la commencé gën a tamit découvrir ràññee ah, tey c' est vrai que boo nekkee professionnel yàgg nga ci. am na lu bëri loo xamante ni peut-être weesu nga ko mais émotion yooyu maanaam nga am benn rêve di ci dox di ci dox di ci dox ba xëy am déjà un premier titre champion universitaire te fii États-Unis lu am solo la. solo la xam nga euh, lu ma gën a marqué rek like suma xam naa suma xarit yu bari bu ñu sitaanee lii nañu xam lu may wax. Mm-hmm. bu nekkee xale ñuy basket affaire yooyu. bu gars yi daan génn dem di doxantu jeeg affaire yooyu. Mm-hmm. man tout le temps dama wax leen man damay dem NBA laay duma bëgguma salir sama sama image wala dara. like damay dem NBA. Hmm. lu ma mus a lu ma mus gëm la. ku ma jege rek xam na ne loolu lu ma mus a gëm la. Hmm. que ni du def yoo xam ne ëllëg dinaa yàqal sama bopp affaire yooyu. like xam nga. def lu war a def. Hmm. bon parce que maa ngi doon préparé sama bopp daal. Ah, voilà même Sénégal moo fa nekkoon nit ñi sax xalaatuñu woon nii. dinaa yegg si si niveau bi nii mm-hmm. parce que nit ñi xamuñu woon parce que boo nekk jour Dakar mm-hmm. nit ñi lijjantiwuñu la ñëw naa équipe nationale U16 euh, U18 gars yi wàññi ma mm-hmm. ñëw naa équipe nationale A ñu wàññi ma donc ak ak bépp humilité bu ma si mënta am tamit loolu si si day defar motivation day defar joueur. ok day nga def ko challenge. un peu voilà day defar joueur. parce que mm. tey lépp warul yomb si sa nga war a dem ñafee dugg fii dem fii tey. joueur yu mag yi nga gën a gis tey si àdduna. Euh, Messi feebar moo ko yóbbu Espagne. Mm, mu dem xam nga moom. d'ailleurs booy wax loolu daf may fàttali benn anecdote bu El Hadj Diouf doon wax tamit je crois que ni bi muy soog a ñëw équipe nationale xaw ma cadet xaw ma junior. Mm. moom aussi dañ ko wàññi woon une première fois. retenir uñ ko woon mu ne leen nag naa ñëw te maa dara yore équipe bi. Ah, loolu la waaw waaw yaakaar naa kàddu yooyu am na ñu ko dégg xam nga. <laughs> na ko mais dafa am benn anecdote bu ma liir ma buggoon ci am ay leeral. Mhm. dama liir ñun nga wax ci benn interview nekk que sans Cheikh danga naroon arrêter sa carrière de basketteur ma bëggoon nga wax ñu ban contexte ak lu waral wax jooju. voilà coach moom bëgguma di wax moom lu bari parce que xam nañ sama xarit la. Mm-hmm. xam nga taxaw na ma fu bari ci sport. Mm-hmm. Euh, maa ngi moom bu nuy bu basket jotee nañu rayante. Mm-hmm. ndax lu ma def rek dayul pour moom. xam nga lu ma def rek mën naa lu ëpp loolu. pour moom. Euh, coach Cheikh ma nekkee Sid. moom moo nekkoon directeur bi foofu. ok léegi nag moom moo ñëwee foofu di jàng. Euh, suma not yi wàcc suma papa dafa ñëw jël ma. Mm-hmm. mun moom doomam day jàng affaire basket fekkee basket mooy priorité doomam day ñibbi waaw coach chef mooy topp di wax di wax sama papa ba convaincre ko ba moo mën a toogaat foofu. Mm-hmm. xam nga. Mm-hmm. donc tey moo tax ma ni tey bu dul woon coach Cheikh tamit du ma continuer si bay bay am chance demee université affaire yooyu quoi. donc moom moo doon wax ak sama papa ni sama papa à partir d'aujourd'hui tey jeex na affaire hmm. jàngam man maa ko jël en charge te si man maa directeur bi fii te lépp lu si war naa ko def hmm. mu jàng correctement effectivement wàllu jàng boobu peut-être intéressant na aussi parce que tey basketteurs yi dañu gis ni ñu ci bëri dañuy boole sport et étude hmm. wax nga ko si sa waxtaan ñu ko jaare nga par le championnat universitaire góor gi ban diplôme la validé ci cursus am. Ah. est-ce que góor gi mi ngi gëstu ba léegi di jàng. <laughs> waaw maa ngi waaw xam nga man gradué naa college am naa sama diplôme. Mm. Ah, am naa samay diplôme. Mm. xam nga ah, ba pare tamit maa ngi kon continuer di jàng ba léegi. maa ngi continuer di jàng. am nga temps boobu. waaw am naa temps bi parce que tamit nit ki lu mu bëgg rek am na temps mm-hmm. xam nga te jàng yàggul. benn su ma liggéeyee ñàkk jàng yàgg d'ailleurs loolu jàng yàggul quoi. <laughs> donc man maa ngi préparé wu. Mm. di jàng parce que xam naa ni euh, bal bi dina arrêté. Mm. te ou tard. Mm. lii gars yi naan da ball gonna stop bouncing. maanaam bal bi ba nga ko bondelee dina bis bis dina ñëw du am air mu taxaw. <laughs> te bis boobu heure bu taxawee rek doo bëgg rek ma si miire basketteur bi ma sol leneen dem mm. liggéey parce que àdduna moom liggéey rek moo fi nekk xam boo xam ne évidemment bokk na ci pàcc yu gën a am solo ci waxtaan bi muy wàllu sélection nationale bon mën nañ commencé fu nekk mais man damay xool sa cursus encore mu am lu ma surprendre ce premier afro basket c'était en 2015 mm-hmm. ak li nga yàgg ci yoon bi yëpp est-ce que yow sa bopp surprendre la lu tax nga yéex a ñëw def coupe d'Afrique loolu du si man si ñoom la. <laughs> ñoom ñan. Euh, sélection daal sélection ñi war a jël. Euh, waaw si ñoom la parce que man yaakaar naa suma wax équipe nationale non. Hmm. après quinze c'est laa commencé suma ma mënul ñëw ma ne mënuma ñëw parce que lii moo tax. Hmm. parce que nit bu demee ba am famille. Mhm. nekkatul moom kese nit du selfish. Mhm. sama sama jabar nekk naa en état nekk fi Amérique ma bàyyi ko fi dem jouer ji coupe du monde donc kon xam nga ne kooku dëkkam ñor na ko. Mhm. bi sama doom bi di juddu. maa ngi ci terrain bi di jouer contre Croatie. bi ma paree laa xam ni sama soxna am na doom. te ñëpp xam nañ am doom nu mu méttee. tey ku sañoon tey gis ku la dimbali surtout boo nekkee àll gisoo fa ndey gisoo fa baay. Mhm. gisoo fa kenn loolu dafa metti xam nga. Mhm. mais équipe nationale moom euh, lu ma ñor la. Mhm. parce que yaakaar naa foofu si li ma mën a jàppale sama dëkk si la bokk. man mënuma dem guerre mënuma def lenn. su ma solee drapeau bi rek ci basket laa ko mën a def. comme si lii la ma yàlla may dinaa si def ba li ma mënul. mais tamit am na kàddu boo xam ne yàgg naa ko wax. su ma demee ba gis keneen koo xam ne mën na lii ma mën mu mën lu ko raw man je préfère toog bàyyi kooku mu def ko. Mm. parce que bu fekkee defar rek moo ñu tax jug te Sénégal kese ñor ñu noonu ngay doxee quoi. bul bul ñiitu ba lakkale quoi. Mm. mais mais am na quand même beaucoup de choses à faire te xam naa ni que waxtaan boo xam ne la wax nañ ko waxaat ko lu mel ni te tenir la à cœur 2015 jege woon nañ d'ailleurs yow yi ne yaa nekkoon. meilleur joueur afro-basket. 2017 mm. ñu co-organisé. Sénégal fii ñu joue à domicile après dem Tunisie mais mu mel ni aussi yéen basketteurs yi li ñuy wax ci footballeurs yi tamit dafa am ci yéen mooy parfois ñàkk déggoo ak problème déggoo ba ñuy wax sa problème ak Maurice Ndour est-ce que yooyu aussi dina favoriser ay ay ay performance est-ce que bu joueurs yi déggoowul seen biir dina yomb en plus de problèmes de moyens environnement bi xaw a jafe et tout ça waa xam nga euh, groupe moom lu ñàkk am ay ay ay problème mm-hmm. euh, mais man lii ma lay wax nii si télé laa toog amul ku mun a taxaw équipe nationale ni mus naa jotee ak góor gi wala mus na ma wax lii mm-hmm. au contraire euh, su ma defarul foofu duma yàq mm-hmm. sama wërsëg nekkul équipe nationale xam am na loo xam ne xel moo koy motali équipe nationale dem ma fa pour dara dama fa dem parce que Sénégal laa dama war a défendre sama réew tey lii ma yàlla may si laa mën a défendre sama réew. Mhm. mais bu may ñëwaat équipe nationale de jouer Maurice moomu nga wax Maurice mooma woo New York ñu toog restaurant ma dama bëgg ñu dem jouer ji pour gagner. Mhm. mais nag ku olof Ndiaye ne ku jiitu ñu ni xoolal sa taat bu dëng bi <laughs> xam nga waxuma ko <laughs> mais ñoom ñëpp tey ñi ñu wax ne ñi wax ñëpp luñ jotee ak man. Mhm. mais ñooñu ñoo ñooñu ñoo na ma ñëwal joué. Hmm. Mouhamed maag Mouhamed dafa am problème Mouhamed sama grand la. waaye sama ancien la nekk Sud la nekkoon. Hmm. ay ma lay ñoom ñëpp samay grand lañ xam nga mais. mais peut-être peut-être am na yow tey ak ñoom ak ñenn ñi ay mag ngeen ci équipe bi peut-être yéen a war a aussi équipe bi à un moment donné waxtaan bi day am solo d'ailleurs peut-être pour ne pas trop tirer ci loolu. nan nga gisee nomination Boniface Ndong comme comme sélectionneur. Boni suñu grand la xam nga jéewandoo nañ affaire yooyu yëpp suñu grand la xam nga. Mhm. Euh, loolu baax la gis nga tey boo xoolee sport basket fu mu basket Sénégal fu mu toll. Mhm. am nañ enough outils pour pour sénégalais jiite ko. Mhm. am ay bonis euh, euh, ma boni. de Sagana ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ay mëla yi ñeneen mun nañ ñëw yor équipe hmm. loolu dafa jot hmm. euh, Sagana yàgg naa ko wax hmm. Boniface yàgg naa ko wax parce que ñoom joué nañ te xam nañ man moo paree si basket pare naa si basket bëgguma entraîneur bëgguma. <laughs> ah bon dara bëggoo dirigeant bëggoo président de club. dara su ma paree parce que pare naa su ma amee lu ma leen di may may leen. Mm. su seetaan jotee ma seetaan si. Mm, mm, solo ma leen. mais am na ñoo xam ni dañu am impact. si si si basket Sénégal. -hmm. donc ñooñu foog ñu ñëwaat. -hmm. ñu organiser wu. -hmm. ñu jàpp si. mais sa sa vœu nga doon wax avant man dama doon dégg tout le temps góor gi naan man Coupe d'Afrique. mu afro basket lu ne la ma jaral <laughs> voilà jaral na ma lu ne. Mhm. je sais que co-organisation bi dox nga ci ay tànk yu am solo. Mhm. pour que Sénégal mën ko accueillir mais àll boobu dafa mel dafa xaw a wàññeeku. mel ni góor gi dafa moom it lâché l'affaire te bu ñëpp bàyyee 97 <laughs> ba léegi mi ngi commencé yàgg loolu. dëgg la qu'est-ce qui s'est passé entre temps dëgg la y a eu trop de déception trop de frustration. 2015 ku ma waxoon duma gagné Coupe d'Afrique. man la waxoo dëgg euh, doole mu ngi fi woon lépp mu ngi fi woon macha allah. Mm. mais am na loo xam ne mënoo di ko gis di ko gisaat di ko gisaat. ngay mm-hmm. am yaakaar. insanity mënoo you do the same thing expect a different result def li ngay def pare nga nga togg ceeb ba pare nga ne ceebu ñu laay togg nga nga yàq ko mu doon yaasa wala mu nekk maafe loolu is impossible loolu mënul nekk si àdduna. Mm. à moins que nga luxus wala nga def leneen ñun noonu la ñuy def. Mm-hmm. conditions yi ñoo réunirul pour nekk. champion d'Afrique exactement pour nga gagner il nga am condition yi il faut nga am ay moyens. Mm-hmm. blâme mooy fédération blâme mooy ministère blâme mooy état mm-hmm. parce que am na yeneen priorité tamit. nit ku ne da wax lu mu la nekk. Sénégal lañ nekk. daf mel ne ma ñëw naa leen non pour ma jouer il nga indil ma lii indil ma laa. il <laughs> ma ñëwee dafa indi xaalis. jënd ay joueurs yu baax wane leen vous ay pro lañ. Mm-hmm. like day jou soo yore ay pro da leen toppatoo comme ay pro. Mm-hmm. soo bëggee so mais mënoo gagné ak frustration. c'est ah, impossible c'est ça sa discours foofu aussi dafa cohérent xam naa ni que sa rapport yi ak peut-être tey avec peut-être l'âge un peu plus de sages ya y a plus de diplomatie mais quand il a fallu sortir à chaque fois après compétition góor gi day ñëw def le bilan sportif. <laughs> mais aussi wax li fi nekk. mais pourquoi retour bi du du changé daal pourquoi changement amul li ngeen wax nit ñi ñoo leen gëmul wala dañuy yaakaar ni vous faites les caprices de star wala enfin parce que vous êtes de professionnels vous dites des choses mais vous reviserez les mêmes choses. c'est un peu la xam nga xam nga. Euh, hmm. tey doo mos a ni ma man la Mame Fatou. journaliste TFM li la non xam naa la yow yaay kan xam naa lu ngay def. Hmm. Hmm. kon jarul may présenté si yow naan la man lii laa. man fu ma jooytoo rek jooytuwuma sax fu ma waxee dëgg <laughs> pour sama rakk yi ñëw ñoo tax. Hmm. ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi si leneen. mais bu dee man rekk la li ma bëgg si sport mun naa ko lijjanteel sama bopp. Hmm. mais am na loo xam ne kenn du ci doxee nit ki bu wàccee yoon nga bàyyi ko yaa ngi. nax sa bopp nax sa bopp ba pare hmm. wax nit des ni lii mooy dëgg. da sëñ Ibrahima da nit bu defee lu baax da ngay xam ne ñëpp ni kii lu baax la def. pour mu soññ ñi ci des. loolu rek la. très bien ak Rwanda 2021 est-ce que Gorgui sera de la partie. xam nga lu ñëwagul mënu ma si wax. Hmm. Euh, dëgg rek laa lay wax Tafa message na ma woo na ma. Mm-hmm. daf fekkoon ma nekk si ay affaire mm-hmm. te dinaa ko woo ma déglu ko mu wax ma. Mm-hmm. parce que tey li ñu mën a wax rôle bi mu yor nii. mooy mooy DTN mooy seet tey ku bëgg mu ñëw jouer mooy seet ñi ko doy mooy créer équipe bi nga xam ne moo ko moo ko doy. Boniface wax naa ak moom mais dafa am loo xam ni. moomatuma ko man kese dama am famille ba pare am na loo xam ni wala ma ci jël benn décision dinaa si waxtaan ak yu man dama daan jékki-jékki jóg rek ni damay dem. mënatuma hmm. ko. danaa xool lan ngeen am lan la ñuy def lan mooy yuti parce que. c'est quoi voilà. Hmm. tey du damay jaay dara wala dara mais fu ma toll su sport. mënatuma jóg rek dem ni damay dem. Hmm. donc bëgg naa xool lan la ñuy def ak lan la ñu fan la ñu bëgg a yegg. Mm. ak lan mooy projet yi xam nga. Mm. ñëpp xam nañ ni mënuñu gagné olympique si. qualifier bi. wóorul. Mm-hmm. mais tamit ça veut pas dire nañuy baisser les dem toog. Mm-hmm. effectivement. sport li tax mu gën a neex mooy ay surprise. mën mm-hmm. nañ dem door ñëpp qualifié. tamit bëgg naa xam nan la ñuy demee. nan la ñuy demee. yan conditions. exactement mhm. ndax lan mooy projet bi daal. voilà ah, loolu kese la puisque démarrage bi projet bu bees la waxtaan bi il faut mu foog mu am solo. Ah, ah. waaw wàllu sport bi mënoon nañ ci yenn fanaan ci mais dañuy dem ci beneen pàcc aussi boo xam ne bokk na ci euh, personnage yu góor gi. Hmm. mooy l' social et humanitaire bu ñu demee ba waa NBA jox la. Euh, un prix moom la ñuy woowe NBA 15 community assist xam naa duñu ko mhm. gërëm gën a faram fàcceel nga nekk étranger ligue bi gën a mag si àdduna jagleel la prix boobu mooy ni que am na loo jot wone te loolu du tey du bàkki dem ça fait très longtemps ñëpp saluer sa action sociale yi ngay teg Sénégal loolu bëgg naa ñu waxtaan ci est-ce que c'est par rapport au basket bi nga xam ne foog lañ la former tàggatal la fa ba ñuy wax le l' aspect giving back wala loo xam ne la c' est naturel en toi. Euh, li nga ma laaj lépp li li ma si gën a ñor. Mm-hmm. parce que ku am neex naa tagg. <laughs> dëgg la yaa baax ku am di ko dégg xam nga. dëgg la. Euh, waaye lu may sant yàlla rek mooy avant dara di sotti. Mm-hmm. maa ngi woon si lii. Mm-hmm. nekk xale nekk Kébémer mm-hmm. di ànd ak samay moroom di naan toog vacances bu ñu demee amuñu luñ def ñu ni nañ dem booloo dem raxas hôpital bi mm-hmm. wala nañ dem nettoyer lii wala nañ dem def lii def lii parce que amuñu woon xaalis nañ cotiser cinq cent cinq cent mille ñu def lii jënd ay ceeb dimbali néew di doole et nekkee xale dañ ko doon def donc bu demee ba yàlla suturaal ma bu fekkee loolu ma doon def ma nekkee xale dëgg la si man dim di ma koy continuer bien sûr waaw ah, ma am chance wu lu ma yàgg wax rek nit ku réussir si àdduna du nit ko am xaalis ku réussir si àdduna du ko am xam-xam wala ko xam ni kenn amul accès si moom ki réussir si àdduna mooy ki nga xam ni nan la mun a def pour changer vie Maam Fatou mm-hmm. impacté ko positively mm-hmm. kooku moo réussir si àdduna tiim nit xam ni kii tey dundam bi tey sa loxo mu ngi si bu baax. Mm. te jële nga ko point A yóbbu ko bee. Mm-hmm. ci lu baax. Mm-hmm. man loolu laa gis ci ku réussir si àdduna effectivement te dama bëgg bis yàlla na yeex kenn xamul naa. Mm-hmm. heure bu ma fi jóge bu ma fàttalikoo ñu fàtte basket bi ma doon def. fàttaliku affaire humanitaire nii. like loo xam ne lu ma bëgg la lu ma bëgg def la euh, du ma bëgg di dimbaliwaate. du ma bëgg xam nga. yàlla yàlla joxul nit éternellement hmm. donc yàlla lu mu la dénk lu nga si mën a dimbal doomu aadama yi nga dimbale si doomu aadama yi suba hmm. suba yàlla la hmm. te ñaanu ma ko yàlla lu mënoon a xew suba am ma benn regret bi ma amee dimbali naa ñu ma dimbali dañuy wax dëkk bu ñu bëggee xam ndax développé wu na ñaari secteur nañuy xool éducation ak santé te yow yaakaar naa ni wàllum santé ñor na la trop ci wàllum maternité euh, dialyse hôpital principal nga yóbbul leen ay machine jafe-jafe yooyu maanaam loolu vraiment je pense que nii loo xam ne la Sénégal gi ñëpp koy rafetlu euh, yaa ngi travailler fii je pense ak waa Minnesota ba hmm. léegi yaa ngi am sa fondation bien que xëy na doo bëgg dévoyer yëpp mais est-ce que am nga yeneen gros projet yoo xam ne ci secteur yooyu noonu bëgg nga ci investir. yeah parce que comme lu nga wax rek gis nga tey lu may xalaate mooy position bi nga xam ne moom laa nekk nii. kenn xamul kañ lay jeexaa mm. mais gëm naa ni keneen ku fi nekkoon tamit di nga def la même chose mm. ça veut nii damay fëgg sama dënn ni maa fi lii wala maa fi laa non loolu intéressé ma mm. euh, lu ma intéressé mooy li may def fi mu jëm kan moo koy jariñoo xam nga loolu moom a gën a ñor euh, waaye fondation bi nga xam ne moom laa taxawal euh, dama am nañ ay projet am nañ ay plan xam nga c'est vrai que tey wàllu sport la wax mais dañuy wax dëkk su bëggee développé wu il faut mu am autosuffisance mm-hmm. alimentaire mm-hmm. ñuy bay di dundee ñun li ñuy lekk yëpp dañ koy importer ñu gis ni aussi côté boobu da nga dem moi je parle j'ai envie de dire quand même c'est un visionnaire c'est un truc visionnaire nga dem investir ci ci agriculture concrètement boo ñëwee dem ci tool yi lan ngay def exactement da ngay ñëw pour balader wu jël l'air frais wala da waxtaan ak paysans yi comment ça se Euh, su ma demee si tool dafa mel ne detox si man. parce que dama tàmm. nit ñi wër ma. Mm. góor gi fii góor gi lee góor gi laa xam nga. ba mm. demee si tool yi yow ak yow gàncax bi kese yaa fa nekk ak jur yi. Mm. donc te dem ma fa pour toog kese damaa damay dem am na ñuy liggéey fa mais damay ànd ak ñoom ma liggéey parce que tamit lu ma xam laay def te loo xam ni dama ci aventuré wu nii. affaire yu gàncax moom am na lu ma si xam. Mm. xam nga. da nga ko jàng. waaw jàng naa ko. <laughs> gëstu ji ko waaw jàng naa ko. Mm, am na solo am na lu ma si xam. Mm-hmm. donc su ma nekkee foofu dinaa waxtaan ak gars yi wax leen sama xalaat lii lii des fois ñu doxal noo xam ne ma xëy ànd ak ñoom liggéey ba ngoon ma ñibbi. Uh-huh. parce que loolu dafa may daf may dimbali. Mm. parce que tey xam nga dafa baax si man dafa daf may tamit xamal ni ma loo gis si àdduna day jeex. Mhm. tey maa ngi fii di kii maa ngi si beneen affaire boo xam ni. Mhm. ci wàllu humilité daal. voilà jàngal leneen. voilà voilà loolu daal daf dafa baax. mais góor gi man danaa la tooñ tey vraiment tey moom dama lay baax parce que dama gis ni que am na ay ay ay jéego yooyu posé yoo xam ne dafa am solo. Mm. ci ndaw parce que ndaw nga. boo mm. amee 30 ans macha allah xale nga. Mm. mais ma gis ni wàllu santé bi wàllu éducation nee nga aussi yaa ngi tàggat sa bopp. ma xalaat ni góor gi est-ce que nekkul di waajal une carrière politique maanaam parce que pour être au cœur des décisions il faut nga nekk tamit un politique pas forcément un politicien mais un homme politique un homme d'État est-ce que loolu mu ngi lay traverser sa xel. Euh, duma def lii loolu du saa waaye jullit hmm. yàlla moo xam lu xew ci jaam bi hmm. mais am naa droit ma ne bugguma def politique. di lu ma intéressé. dama bëgg bu nuy fàttaliku ñu fàttaliku ma góor gi as humanitarian. Mm. maanaam kuy. dimbali. voilà mm. mais pas ay affaire yu politique wala affaire yi la mm. politique nag lu noble la. Ah. parce que da nga du dafa bon wala dafa dara. mais ku ne ak li nga bëgg ci àdduna. sànq naa la bëgg a dimbali du tax sa bopp. xam nga bëgg dimbaliwaat mm-hmm. dimbaliwaay du tax sa bopp affaire politik c'est dafa nekk lu sensible Sénégal. Mm-hmm. Sénégal <laughs> dañuy politik élection yi bu jàllee dañuy politique ba ba bi ñëwaat. <laughs> te yeneen dëkk yi bu ñu xasee ba ne élection yi bu jeexee rek. ñu ngi si liggéey bi ba campagne amaat. Mm-hmm. donc dëkk yu mel noonu boo si nekkee da ngay moytu. da ngay moytu euh, yaakaar naa ni. yàlla suturaal na ma ba li nga xam ne maa ngi koy def di impacter people nit ñi seen mm-hmm. seen dund mm-hmm. maa ngi ci sant yàlla bu baax ah, li ma am as ak lu mu néew néew maa ngi siy dimbali waate mm-hmm. donc man loolu rek doy na ma quoi. doy na la doy na ma. <laughs> on verra de façon waxtaan bi foog naa am na solo. Ah, dañ lay bàyyi aussi peut pour tëj nga joxe sa kàddu bu mujj. waaw euh, first of maa ngi leen di remercier bu baax. Mhm. parce que mm, xëy jóge leen Almadies rek ñëw fekk ma sama kër Dakar. <laughs> Mm, def ngeen ay jéego. Mhm. te yow tamit euh, mhm. mënuma la ma lay ma lay remercier ba fu mu yem. parce que déggante bi jafe woon na. Euh, def nga lu ne pour yegg si fii tey. donc euh, ma lay remercier bu baax si loolu nga def. wax dëgg yàlla li may wax rek nit ki lu mu bëgg rek da koy jaral lu ne. Mhm. ça se voit ne lii jaral na la. Mhm. Euh, te yow euh, amuñu dara loo xam ne mun nañ ko mun nañ la ko reprocher. Mhm. moo tax soo ma foo ma woo rek damay sawar pour waxtaan ak yow defal la li nga bëgg parce que ñun ñëpp. ñoo bokk liggéey bi Euh, maa ngi remercier ñëpp ñi nga xam ni tey ñu ngi ñu ngi may xool ñu ngi may bëgg. Mm-hmm. di bëgg liggéey bu ma def. Mm-hmm. xam nga maa ngi remercier ñëpp ñu nga xam ni dañuy bëgg góor gi en tant que humanitarian. en tant que basketball player ak nga mm-hmm. xam ni moom nit ki kese. Ah, parce que tamit xam nga personnage bi bokkul daal. maa ngi maa ngi sant ñoon ñëpp. Euh, maa ngi remercier Sénégalais yëpp tamit xam nga te di wax. Euh, ndaw yi tamit ñu gëm seen bopp xam nga te xam ni àdduna moom euh, dara jomb la mm-hmm. waaw loo moomul daal na ko bàyyi mm-hmm. te luñ la tere nga xam ni dañ la ko tere mm-hmm. euh, loolu daal bu ci ndaw nekkee yaakaar naa ni gàtt làmmiñ gàtt tànk mën naa mucc ci lu bari te fonk liggéey waaw loolu daal maa ngi koy dénk sama moroom ndaw yi. Mm-hmm. ñu gën a góorgóorlu te xam ni dara jomb leen ci àdduna ci lu baax. dëgg la ci mm-hmm. liggéey tamit teg ko ci mm-hmm. liggéey. voilà voilà tout à fait góor gi kontaan nañu trop c'est vrai que ni nga ko waxee euh, jokko bi jafe woon na c'était pas facile mais aussi comprendre nañ ni ko contexte bi la. xam nga ñun bi ñuy waajal lii sax ñi ngi xalaatoon fekk la Minnesota. donc ni ma ko waxee sa transfert ni mu la bettee noonu la ñu bettee. donc comprendre nañ mais aussi bi ñu ñëwee ba yegg ci. yombalal nga ñu liggéey bi te loolu rek am solo donc ñu ngi lay jaajëfal di la wax ne aussi ndaw nga boo xam ne modèle nga pour les sénégalais euh, yaakaar naan ci wàllum social tey bokk nga ci ins ñi inspiré ñi tax sax ñi duggul woon def wala doonuñu woon def tey ñuy def te loolu rek macha allah ndam la donc ñu ngi lay jaajëfal di la souhaiter aussi une bonne suite de carrière li nga bëgg soxol xol yaa ko xam yàlla defal la ko yow. ak ak sa famille et puis nga continuer di ñu bégal sur les parquets de la NBA et en sélection nationale parce que aussi soxla nañu ñu mel ni yow tey ñu encadrer xale yi aussi indi seen expérience jàppale aussi ñi nga xam ne ñoo bees ñoo aussi ñoom aussi bëgg euh, mbir yi gën a sotti ñu ngi remercier évidemment suñu direction groupe Futurs Médias ndax sans ñoom aussi yaakaar naa ne lii yëpp dunul woon mën a am di remercier aussi Assane Badji mm. ndax wax nga ko mais yaakaar naa ni jéego yu bëri aussi ci émission bi ñu def moom dox na ci lu am solo donc li ngay wax lu yàgg dëgg la kóllëre gi mu ngi fii te ba léegi mi ngi liggéey pour que mbir yi gën a gën a sotti donc ñuy remercier aussi Amadou Gallo Fall parce que ni ma ko waxee rek suñu premier numéro moom aussi ci wàllu facilité am accès NBA ndax ku wax NBA xam ne que c'est la plus grande ligue de basket au monde. Mm. du lu ndaw donc moom aussi. facilité nañu liggéey bi di remercier aussi samay jigéen samay sister ñoo xam ne ñooy may jàppale euh, maanaam Lily coiffure ndax moom moo may coiffé yàgg na du tey mu ngi nekk euh, derrière euh, l'école Hyacinthe Thiandoum donc li ngeen gis numéro si écritel bi di remercier aussi Rama Rama Diaristo moom aussi moom moo ma solal Jaristo Moda mu ngi nekk rue Eni Sicap ba moom aussi ni ngeen gis numéro voilà ñi jàpp ci mbir mi bëri na Euh, ni ngeen ko xamee nag Hamza la ak Mam Fatou ñooy fexe di leen yóbbu ci ñi nga xam ne ñooy sportif yi gën a fës ci Sénégal ak ci àdduna bi ñoom ñuy représenté aussi fièrement fépp ci àdduna bi ñu ngi leen di jox dox daje ci beneen numéro des maîtres du jeu excellente soirée et à très bientôt au revoir mbaay nangu sañ ta bañ sañ a nangu si sa diggu doole taxaw bàkku jël pileer bay waar soo xeeku yaa koy dund every day respect doo ko laaj dal koy faay mooy des choses à dire il y a avec Gorgui Gorgui foofu lay jaay lu mu neex neex kan ko ñedd nguur gota ko moom du leen ci sédd ñu ni jeex na di jom mi foofu foofu fee ngeen koy dégg lu mu yàgg yàgg bul fàtte ñi ko taaj ba tey mu taxaw am gënt